deuxième troisième ñu andi waat assalaamu alaykum wa rahmatullah saytu sénégal numéro 1 numéro 2 numéro 3 saytu sénégal numéro 4 saytu sénégal sekrullah yi di waxee ousmane sonko ak mboolem ñi nga xam la andi liggéey ak le président de la république parce que iru jomay fay di nuyu ñëpp di am rek ay quelque tënk yu ñu bëgg def delloo si waat la ñuy wax buum ca booboy ga comme ni ko xablo di di ci situation fu ñu ko jaay ci ay ñu fas yéene rek tàmbali woon liggéey boobu ndax gis nañ ne audio yi moo gën a efficace su ko defee ñu bëggoon a tënk ay poñ yoo xam ne ci situation yi ñu toll la ngir yee sénégalais yi ci li nar a ñëw di leen moytuloo ne daloon waa banoo israël waaw ci jiitu nag mooy mbirum situation yi nga xam organisation nationaux yi nga xam ñu ngi dëkk bi nga xam dama wóor na france buy jóg ngir yàq maanaam suñu révolution démocratique bi ci ñoom la koy jaarale france buy jóg ngir yàq suñu révolution démocratique bi ci ñii may lim la koy bëgg a jaarale ah nag actuellement ñoom ñi ngi ci waaye pour ngeen programme leen dafa am benn société bu fi nekk bu ñuy wax Senelec état moo ko moom am na fi beneen société am na beneen euh, association bu ñuy wax ENACOA am na ay association yoo xam ne wala ay groupe de presse yu fi nekk ba ca jiitu mën naa ko tudd muy CFM groupe Futur Media comme ni ma ko baaxoo defee rek influence yi ñu nar a def yëpp dinaa ko leeral malgré loolu amagul su amoon laa wax ak lu ci aju ak marchandise yi ci aju ni mu nar a tëddee boobu bëgg naa ci def bëgg naa ci def waxtaan ak discours prestation de serment bi bëgg naa ci def cérémonie moom ak gàttal ndax am na ci kenn ci groupe yi sax ku ma ci doon laaj ne bëgg naa ku ko ci leeral ba mu gën a leer ak Macky Sall ni mu gaaw a génnee dëkk bi toogul sax ndoogoo fi door a dem ak président Amadou Ba gis nga ko en tant que candidat fekkewul prestation de serment bi dem na ci xom raga ak lenen ak ak Macky Sall situation yi ñu tollu ni muy defee ay signature di nomé ay nit di nomé di woo ay kadi di woo mbër ñi mu lan def ay ñi mu lan def ay ay communication li euh, ñuy wax comme ça environnemental ñen ñun ay comme mu leen ak décret yi mu jël di tollu wala dara jay manam euh, militaire ak ak gendarme yi <coughs> lool dal lepp bëgg nañ ko euh, tënk doolu sax député yi mu noonu jox auto depuis ñaaraat yi jox na auto ay auto ci semaine yi weesu xëy na lenn lu ne lam ci def am na lu tax mu def ko bëgg nañ koo leeral xam nga situation yii ngeen tool am ngeen président de la république bu ñu wax Bassirou Diomaye Faye président boo xam ne yéen ñëpp ku ne mën ngaa waat ne kenn falu ko wudal population bi mën ngeen a waat na itam mucc na ci mboolem li ñuy wax lobby étranger yi ak financement étranger yi mboolem force yi ci àdduna bi yëpp yi ci àdduna yëpp Afrique saa suñu defee élection seen dara du cee dugg na mu cee duggee nii la mooy dañuy wut dañuy seet mboolem candidat yi ñu am comme ay candidat par exemple Sénégal gi bu fekkone manam dañu amul 5 candidats ñom 5 candidats yépp dañ leen financé maanaam lobby gor jigen ci misal dañuy jox euh mbolam juróomi candidat yépp ngir ku gagné ñu nañu wara financer financé lobby faramasonerie yi dañuy jox mbolam candidat yépp ngir ku gagné ñu wara financer waye ñi li leen sens li leen may sens moy jëmmi nit ñi ñoo génn seen xaaliss financer leen nit ñi ñaan leen financé te financement bi li tax li ngeen finance ak jeexam du yomb ma tàmbalee ci sama bop man bokku na ci ñi nga xamne jël lay seen ala def ci campagne bi waye gënaa bi ko ci defay itam dugaat nañ ci campagne bi ak seen wërsëg bop woo xam ne jëmmi parti bi ak lu parti bi yoralu leen dara yoralu leen añ wala yoralu leen dog yoralu leen dara defu leen ah, gasoil defalu ñu dara suñu auto ñoo jëy def gasoil ñoo jëy def xam nga koku desa loko jox rek pour mu doy ko dina ko yomb lenn rek lañ ñu jox moy dog mburu ak tàndaram ak kasu kafe waye suñu auto bis bu set danañ sol essence te ñom duñ ko sol ñoo koy entretien ñom duñ ko entretien ñooy jóg itam di dem ci mboolem bon ndaje yi ñuy woote yëpp ñu noo koy wax suñu bopp léegi nag loolu bu bu ngeen buñ ci defee indétermination baaga situation bi la tubaab yi jëkk xam moo ñoom ñu ñu fal bu ñuy xalaat di xool wala ñu leen fal dañ naan population bi population bi leen fal nag ñoom bu ñu leen fas yéene liggéeyal tubaab yi ñoom dañuy daal parte perte daraja ak dayo ak wërsëg ak alal gi ñu amoon ci biir réew mi ak seen i organisation yi nga xam dafa bokk ci lii seen do lii seen doxin mooy yàq yooyu moom lii seen doxin mooy yàq loolu bu ngeen seetloo Égypte dañuy wax ixwaanul muslimin jaamarloo nañu ñoo état bu Égypte xeex moom xeex ak moom ba Mohamed Morsi gañe bi mu gañee ñu teg ko fa mu commencé liggéey liggéey ba gaaw loolu macha allah Amérique jaar sa ginnaaw ànd ak li ñuy wax occidental yi occidentaux yi jaar ànd ak lu ñuy wax Israël ak ñeneen ak ñeneen ñu wut seen benn général nu Al-Sisi mu ñëw daane Amérique mu ñëw daane ko léegi nag ñun ñii nga xam ne ñu moo ngay Sénégal le président de la république Bassirou Diomaye Faye ak e le président Ousmane Sonko formé nañ gouvernement légui nak formé nañ gouvernement problème biñ leen a indil ci dès la première moy ñu yor secteuru énergie bi Sénégal Sénélec ñoom tey jii maa la ko wax di leen ko wax fraude ñu entreprise bu ko dakk ci àdduna entreprise bo xamné xam seen directeur ak seen service ak nga fay liggéey doon fa dara ñom duñu fay courant duñu fay dara ñu leen neex la koy consommer di am ay salaire yu 10 aussi itam di am ay salaire yu diis yemuñ waaye dañu am ay privilège yu diis seen directeur itam di am loolu ak loolu yëgoon ngeen site rek bi fi niñ fi créé woon yëg ngeen yëg ngeen yëg ngeen yëg ngeen yëg ngeen sax machine yi ñu daan créé tuddeel ko ay woyafal ñooñu nag xam ngeen ne gravité bu ngeen xalaat ne man sóor fay def na ko ñoom waa Sénégal ñoo wënoon ëpp gravité boobu bu ñu yërloo ba xam ne le président Ousmane Sonko daa leen di attaqué rek dal seen kaw loolu nii la ñuy def ñoom nii la ñuy def mooy dañuy def saa suñ xëyee ñu coupé courant bi à 8 heures du matin huit lañu xey ñuy xëy pour yeen ñi nga xam da ngeen liggéey ci courant bàyyi ba 2 heures ñu andi war courant bi dina leen indi problème technique lañu dara kala 2 deux heures trois heures ñu war ko buñ ko andé ba 5 heures ñu daal di koy coupé waat bu leen kala problème technique loolu lañ lay wax dina leen réclamé problème combustible combustible problème inertie et cetera su démé ba minuit ba ñay ba len tedd ba ba minuit ngeen tedd yeen tëju seen seen seen nekk ñu daal di coupé waat courant bi ngeen di fanaano aw tangor ak ñaq disit mu démé ba 6 heures 7 heures dama dañu dur ko andi wat ci li lañuy def lañ lan lanuy réclamer moy yéen su boba yéen population lañ ko def xam nga doomu aadama dafa am ko yàlla bindé ma misal la ko jowakar kan Moussa ak Firawna alayhi alayhi salaatu wasalaam Moussa garo mu libéré jaam ñi wala wa banu Israël ma ko xalay an an arsil mahi banu Israël dama bëgg nga libéré wa banu Israël ngir ma ànd ak ñoom ne ci jàmm ak ndax ya ngi leen di jamulo te jaamu gi nga leen di jamulo te ko ci yoon ba Firawna ne ko ndax defuma la woon alam rabbika fina walidan na ko yow Moussa ndax defuma la woon sama doom ci biir pale bi ma defal la wala bi sakina min xumura kasinin wa faxalta faxalata kalati faxalta wa anta min alkafirin ma ne ko xëywal defal naa la ko tey nga xëy daal di may na ba na ko sax laa jaxalan man dinaa la ma defal rek na nga gëm ne jaamu gi mu doon jaamul waa bani israil rek maanaam loolu laay jël fayawaat la ko keroog bi Musaa génne ni yow naa bani israil nañ leen ànd ñu daaw firaxaw na génn misra ñoom bañ génnee jaar ci géej ga ba yàlla xar géej ga ñu jàll moom Firawna ñëw lab ci géej ga ba ñu génne ñoom waa kër moom waa banu Israël dañoo xiif gisuñu lu ñu lekk ñu mar amuñu lu ñu naan problème bi li ñu jëkk wax mooy Moussa noonu lii ngeen yóbbee ñu xamuñu ko te ñoom ne yàlla alagal na den rayal na den seen noonu bi gën a rëy mi Firawna dañu ko ñun problème bii ngeen bëgg a ñun xamuñu yow naka lañ daan nekk ci na ak banu Israël di nekk ci Firawna ñun ak ak ak giru xibti yi mooy mbokkam yi nekk ci seen dool di leen bayal di leen jaamu ñuy liggéey rek yone dëgg la amoon na nag waaye daanañ añ daanañ rek daanañ dekki nga dugal ñu suñu lii nga xam ne añuñu réeruñu dekki loolu laa daal di attaqué Moussa ñoom tubaab bi wala lenn ci société nationale bi seen njuubal gi rek seen njuumte yu ñu nekk bu ko le président Sonko bëggee ni nii ma leen wax la leen di comme ay problème parce que amoon na fi 2012 bu ngeen ko fàttali ko ba Karim Wade indi ko dañu apprend takkal situation yooyu nag bu ngeen ko dund la ba ngeen dund ko bu ngeen jógee du ngeen xalaat ne waa Sénégal ak ñoom ñooy guerre ak Ousmane Sonko wala naa ma nag fàttaliku ngeen jëmmi deux mille ay at ci ginnaaw ba Youssou Ndour naan maa dem ba bu dee yow la xamuñ kan la yaa ñuy gaañ yaa ñuy tooñ mooy ba ñuy coupé courant yi booba ñu ngi combattre ak Abdou Diouf loolu nag yegg seegul waaye dama koy anticiper suñu koy def lan la jublu mooy les populations sénégalaises bi daal di jóg songu directement le Bassirou Diomaye le président de la République Diomaye Faye songu le président Sonko bu ñu gisee ne song songu na jóg ngeen songu leen ñoom dañuy reculer bàyyi waa nekkoon avant ñuy contrôler énergie bi da ciy di di bi lan neex ngeen di gën a sonn su boobaa su ngeen ci yeggee damaa bëgg rek waaye ñu gore ba ñu def ni waa Fatah ni waa Banu Israël defoon gore nangoo ñaq nangoo tàng nangoo ñàkk suñuy liggéey ba baa mu ñu koy régler ndax maaw deng bu Chine dafa waxoon ne man juróomi at yu may liggéey di souffrir ngir téeméeri at ma am liberté moo ma gënal dëkkee li dëkkee dund bu am taw liberté mooy ñun su boobaa ñoom waa Sénégal bu ñu doxee fii damay wax rek di leer egg egguñ ca nag bu ñu fa doxee yéen ngeen am position ak taxawaay bu toll nangoo muñ tàngoor woowu ñu leen di yóbbee ak manigance ak show yooyu ñu bëgg leen a jaxase ak seen i njiit te fekk tànn ngeen njiit njiit yi aussi inaakuwaa bu ngeen fàttalikoo atam atam bu ngeen fàttalikoo atam parce que état amul benn banqaas boo xam ne moo koy seere banqaas bu ne daf koo ko doxal état du mooy koy jëli ceeb Thaïlande état du mooy koy jëli diw France état du mooy koy jëli weteen Chine état du mooy koy jël la ñuy wax euh, ay garab et cetera di indi Sénégal loolu lépp ay commerçant ñoom la état di faciliter ñu dem ko jëli ñoom la état di faciliter ñu dem ko jëli ñooñu nag ñoom am nañu ay kuréel yu mag bokk na ma ji gën a xam mooy inaakuwa atam bu ngeen ko fàttalikoo nan lañ def jël suukar si denc mooy bi ñu bëggee daan Ablaye Wade jël suukar si denc jël ceeb bi denc ñun waa Touba dund nañ ci loo xam ne maa fàttaliku naa fii benn commerçant bu ne fii ci corniche corniche bii dendee kër Ndiogé wala moom Serigne Saliou ñu daan rang rang goo xam ne mat na 3 kilomètres ngir jënd leen saako ceeb ngir nit ñi yokkat ci Ablaye Wade ngir ba élection yi dikkee ñun ñu mën koo folli ngir defe na nekk benn jumtuwaay bi nga xam ne moom la France di utilisé wu ngir ri jafeel marchandise yi denc ko ci poore waaye laa ñu toog denc seen bañ koo jëli waaye laa buñ ko indee bu leen kilo suukar doon jar téeméer ñu yóbbu leen ko ba 1000 ngir ngeen na ñun ñii ay xale lañ mënuñoo gouverner comme ni leen ko ñenn ji di moo tax kaddu yooyu may jóg di artu ak saytu di bàyyi loo nit ñi ngir buñ ca yeggee ngeen xam ne ba tey loolu rek pièce la ngir jaxase la nag seen i su boobaa lan la leen di soxla woo mooy muñ ab diggante am na nag lu waa ban am na nag lu yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon waaw ah, loolu lu Musaa waxoon alayhi salaatu wasalaam naa ma ko waxaat keroog Musaa alayhi salaatu wasalaam bi mu àndee ak waa banu Israël ba génn ba génn ci jafe-jafe yooyu ñu nekkoon situation yooyu Firawna dugaloon leen keroog bi ñu rombee aw nit ñuy wër génn a déem di jaamu yàlla dañ ne moo tax ijxal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha defal ñu yàlla comme ni ko ñëwee amee xaari innakum xawmun tajhaluun inna haa'ulaa'i mutabarrum maa hum fiihi wa baatilu maa kaanu ya'maluun yàlla ne ne ne daal nit ngeen ñoo xam amu leen pas-pas amu leen gëm-gëm dañ leen ci lii ak ñoom la ñuy def parce que loolu lépp ay caaxaan la ak neen la dara loolu leen doon saa salaam bu mu defee li ñuy wax eh, xasootu badrin ba ñu bi saxaaba yi romb nañ lu mel ñu ne yonente buutal ñu am am mahbat bu nuy jaamu mu ne leen yéen di ngeen topp su nas ñi leen jiitu woon su nas ñi leen jiitu woon ba buñ dawoon dugg ci paxu mbët sax ngeen na ca men te dugg comme ñoom daal dina moytu leen a wax la waa banu israil waxoon Muusa daal di tudd aaya ba daal na ishan a ilahan kama lahumu aliha kama lahumu aliha loolu mooy li ma leen bëgg misaale ne leen ëllëg lu muy di metti metti nga xam ne ci ay compléteur lay jógee nii nii la ay organisation nationale la organisation internationaux yi ngeen seere ko ba baax te muñal may seen njiit ab diggante bu ñu leen bëggee gama ne leen lii ci benn weer ak ñaari weer ak ñetti weer ci la ñu koy defar maa ngi leen di xalaat ndax lu ñu yàq juróom benn fukki at ak ñeent nit mënees na koo liggéey ci benn benn weer wala benn wala ñaari wala at waaye nag réew neex naa defar li neex a defar mooy Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee état islamique bi 300 la ci def maanaam développement bi ngeen di dégg bépp xëy na bés dem fa ñuy wax baytil maalil muslim maanaam fa ñuy wax trésor ba mu demee trésor fekk alal ja bari mënuñoo tëj buntu ba mu daal di jooy garde bi ne ko lu xew ba jooyi ba jàmm na mu ne Omar te alku na torox na ba yées ci xeet bi ana naka lay nekkee ci njiitum réew jiite jullit yëpp dem di denc alal ci ay trésor buntu yi mënu la tëje Omar moom mii ñam ji ñu def jaboote ñëpp a ngi xiif garde bi ne ko déedéet loolu de maa ngi la ci sàkkul mbégum yàlla desaa ko sa mbég yow amirul muminin mun na ko ay guddee ngi nii day may saf ay gëleem ay dund akum xaalis mun na ko yegg naa ci ku ma ko jox nga ne bëgguma ko ma yaakaar nit ñi dañuy bañ bañam rus maa leen di par deux heures guddi gu sori ñu ne ñun aaju yowuñ am nañ loolu day bu fekkee da nga ko sax mën nañ la koo ñu ma dellu si mun na dem naa ba egg ci jàll sax alal ji ci marché yi ne ko bëgg ñëwal jël nee na gisuma kenn ku ko jël mun na ko yegg naa sax ba yegg ji di fayal nit ñi seeni bor nit ñi ñu bari ñaan nañ min amatuñ bar mu ko mu ko yàgg naa sax ba yegg ci kaw doj yi dafa sotti dug dug akum ndox ngir picc yi naaw di fa wo di ko def ngir bëgg bañ bañ ba kenn yëgu kenn yëgu coono dana ba ne xomar yegg na sax manam di di jéggalé manam mboolem ñi nga xam ñoy ay ahlul kitab nga xam ay chrétien lañ dañoo dëkk ak ñun leen daan laaj ay lamp omar daal di feex daal di gën dem ne soxna ci kon man tay su mané xalé ak ndawal ndax dëkk ma jité kenn xiifatul de li day ñett at sax ma dugg waaye lool lepp li ko war a 6 6 justice justice rek moom mooy mbir mi xam nga ma daan faral di wax ne day Omar sax ñu formé ay groupe yoo xam ne na ko ay secrétaire sala waxee woon mën nañu dem sos benn benn manifestation boo xam ne dañuy defe ne waa réew mi ñooy manifesté wu bu doon benn téeméeri nit benn ñaar téeméeri nit ñu koy def ci vidéo di ko def ci ay di def ci ay audio di ko tasaare di ko tasaare di ko def ci France 24 FM di jàllale comme nañ ko defoon Xadafi Abdel Fattah Moustapha Abdoul Jalil mi ngi ne fan la nekkoon demu doon Tripoli demu doon Tripoli ca capital bi rek dëkk bu ne woon daanaka ca uh, Benghazi la ne woon Benghazi Benghazi ma nga ca ma nga ca frontière ba ànd fa ñaari nit ñett nit ñoo wax benn caméraman ñu waroon a ñoom mi ngi Tripoli ñi ngi bëgg daal dal ko kaw Xadaafi foofa la uni jaar ba envoyé fa ay soldat ngir ñu daana dëkk ba loolu lépp na ngeen ko éviter te nekk nit ñiy défendre seen réew nekk nit ñiy défendre seen i njiit ndax kat na ngeen moytu la daloon waa Égypte dal ndax Mohamed Morsi daa waxoon ne bu leen ma bàyyi mukk ak noonu bu leen ma jiital bare wan ma ginnaaw maanaam bu leen ma xeexle it ba teg ma ci toog bi nee na ngeen wan ma ginnaaw wéetal wéet ma c'est-à-dire mooy bu leen jël la président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye bu leen jël aussi le premier ministre président Ousmane Sonko yóbbu leen ba ca pale ba yóbbu leen ba primature dell daal di dellu nelawi wala ngeen wala ngeen dellu nelawi bi dent ji wala ngeen nelawi yandoor seeni noon jaar ya seen ginnaaw alak seen noot jaas leen nërmeel leen su boobaa dañ leen da ngeen di delluwaat ci njaam gi ne nekkoon loolu na ngeen ko daw na ngeen ko moytu te bàyyi xel lu egseegut la woon lu egseegut ma ci yeete ngir lu xam ne lu nekk mën naa am beneen bi ci ko mooy ñu tënk ko euh, le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye démb def na benn discours mu ne justice day dana fi dox fekk la ko jiitu sax mooy euh, maa ngi toog man jàkkaarloo ñoom xooluma leen ci télé xooluma leen ci écran ma ba Bassirou Diomaye fe ñoo def mak kenn du sama digante ak mom man ak procureur bi ak euh, Badio mohammed Badio kamara ñoo toog mak kenn du sama digante ak non Badio kamara ci kàddoom ba muy wax wax na ni rew mi day amul ben problème amul itam duggul ci ni wax crise institutionnel dara xewul te lolu ba xewoon suñu jafay tay bi du am lolu la wax amna na ñu bëgg lu mel nonu ba jaral leen ñuy def propagande ngir doxal daan way nit ñi day dañoo xamul parfois dañuy tabbi ci PS ak ay propagande ñoo xamni saa suñ ci duggee ba xóot ca ba institution yi duggaale ci su boobaa seen musiba lay doon la ñu bëggoon mooy élection yi transparence élection yi démocrate jàll na bis ni tey ñu fal président boo xam ne kenn forcé bu ko kenn kuñ ñuñ jël la ñu toll ci 19 ñu teg loon ci taabal ñu ne tànn leen seen bu leen neex nit ñi daal di tànn la président de la république Bassirou Diomaye Faye ci suffrage universel direct boo xam ne ñu ngi ko def premier tour muy 54 virgule 28 pour cent kon réew mi ci benn institutionnel newul te te loolu la wax daan na nag ñun ñëpp nee nga woon ci la ne ci la nekkoon waaye réew yi am crise institutionnelle day réew yooyu xam ngeen ne ci diggante lu matul ñaari weer yu ne crise institutionnelle am na ñu fal président daal di koy yóbbu ci cour conseil constitutionnel mu def discours de prestation de waat ci kanam nit takkal ko couronne bi mu nekk seen président de la république état wii di fonctionne di ko gunge muy dox ay soxlaam yi deme ko ñëw de nee na ma loolu Euh, maanaam crise exceptionnelle mësu fee am moom nag ba mu jógee le président laa def le Bassirou Diomaye Faye nee na maa ngi leen xamal ne day dinaa delloo justice ak ñun lu ñu moom ñun Sénégal ñun ñëpp ñu seddoo ku na jot wàllam ak leneen li ñu seq ñeneen ñoo xam ne dañoo ñëw ci réew mi ngir liggéey ñoom bu ñu amee téeméer ñun ñu am téeméer bu ñu amee juróom fukk ñu am juróom fukk daal la ci naan du ma fàtte mukk ñi nga xam ne dañoo sahid da dem ci seen borom sahid martyr la ko jëfandikoo baat boobu du ma leen fàtte mukk ci seen détermination ak seen taxawaay ak seen dem ba jeex Sénégal kat Sénégal ak ñëpp la du mag du Sénégal ak ndaw Sénégal ak euh, góoru Sénégal ak Sénégal ak Sénégal ak waa Sénégal léegi nag am na ñeneen ñu ca topp di wax naan ana lu tax gisuñu fa yenn ci kilifay diine ku ko wax waxul dëgg man maa fa demoon maa fekk maa gis kilifay diine yàlla dogal na dey lafa sant si sant fa Mbàkke ak mboolem ñu nekk ci réew mi di ay kilifa mosul am benn prestation de serment boo xam ne kilifa yi diine taxawee nañ ci taxawaay bu toll ne ba ñu ci taxawee léegi nag kilifa yi diine dañoo xajali ko ci ñaari xaaj boo dikkee Touba gii fi ma dëkk man xam ko ñi nga xam ne am nañ ay soixante dix ans boo leen xaajoon bu ñu doon téeméer man maa lay wax barke alquran ba ma nekk ci biir combat bi ginnaaw yàlla bu ginnaaw yàlla ñoom ñooma ñooma ci wax ñoom daanaka bu ñu doon téeméer juróom ñeen fukk ak juróom yi mën naa ne ñoom ñëpp le président de la république président Bassirou Diomaye Faye lu ñu àndal dañu ñaax duñu soññ waaw dinaa ci tudd kenn rek koo xam ne moom wax dëgg yàlla daf may woo bu baax ku ñu wax sëñ xam Xamsatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad Mbàkke woo na ma soññ ma gën maa dëgëral ci mbir te bari na ci moom lool ay nawleem yu ko daan def kon ku ne kilifa yi diine yi bokkuñ ci pal gi kooku da ngay lambatuwaay xamoo li ngay wax ngay lambatuwaay xamoo li ngay wax boo demee Tiwaawan ngay gënoon la fa demee kilifa yi maa leen daan dégg sama téléphone kilifa yi diggante mu xaddam ya ak sëti Cheikh Seydil Hadji Malick Sy soñ waxtaan ak seen i bi fii ci fii ci dëkk bi itam Touba waxtaan ak seen i taalibe ñoom ñëpp ku xam la daan dox ci suuf xam nga ne loolee buñ ci soññ doon taali yi mun ta nekk bu dee nag ñu yor bopp kër yi mooy Serigne Mbaye si ak Serigne Mountakha ñooñee fi ñu taxaw mooy seen position seen position mooy ñoom ñoo jaboote ñëpp am responsabilité b jaboote Macky Sall ak Bassirou Diomaye Faye duñ ànd ak Bassirou Diomaye Faye duñu ànd ak Macky Sall ñoom ña ñuy àndal mooy njaboot ga ñuy def te njaboot ga ñuy def moom ñoom ñenn ñu ne dañ ca dañ leen a séddoo ñenn ñu ne jëm nen kon luñ man ñoom ne pat nee nañ pant mu ngi jaax waaye ñoom ku ñu àndal te ànd mu leer nañ ni mu wax ko day da da koy fal kenn mënu ci dara man xam naa li may wax te ku defee ne Serigne dañ leen a weddi bu Tiwaawoon dikkee ba Serigne nga xam ne Serigne Baye mu woote da nga xam ne Serigne Mountakha ci àdduna duñ ko weddi Serigne Mountakha ca àllaaxira doon ko woote kon la président de la République Moussa Bassirou Diomaye Faye moom li ma bénéficié wu ci xalifa yi kenn mosu ko cee bénéficié wu kenn mosu ko cee bénéficié wu li ma li ma bési li mu bénéficié wu ci turuxaat yi kenn mosu ko cee bénéficié wu beneen bi ci des itam dégg naa li may tontu nii dégg naa ne waa RFM ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñi nga nekk ku ñu sëriñ seen yoon nekku ñi ngi lay xaare benn mois de mars sanga mois de mars bi dootul am parce que yéen yéen a ko waral yéen waa RFM yéen waral mois de mars ndax yéen a topp Macky Sall 2019 di ko 2012 diko ko jaay yow ma kumba bay 2019 ba géej résultat di wax na faraccaar bu muy dal ànd koog sen nak tagi bu mat sen ben sama ci journaliste jàkkaarloo président da rew république Moussa Bassirou dama fay lam ko wax man duma ci dar tudd ko ba dend la ko ko saga te tay ji yalla wal na mooy patron yen na sen problème lan la moy da ngeen a nekk benn organe bo xam ko fi nek da ngeen koy chantage bu nangoo ngeen and ak mom di ko le fat le fat ka chantage mom ñu duñ ci dox yen yena xalon yon wo yon wo yen yena yéen a xàlloon mois de mars te mois de mars bu mu dikkee maanaam kan mo daanu ak ko ci am ndam mbir mi démb la woon ci mois de mars 2021 ba mbir ne cobbe ba xel ba xulafaa di wax maanaam bi ñu waxee nit ñi toog favorablement ci côté kan la favorable ci yéen Assane Gueye moom mii di seen directeur yéen waa yéen waa RFM ba mu jaare daal ne ba ba mu toogee ca plateau ba daal ne Sonko moo war a gaaw génn wax ak boy yi gis nga responsable ndax dëkk bi daal booba kan moo nekkoon ci situation yi critique kan moo nekkoon ci jafe-jafe moo tax réew mi na ngeen xam ne ñu ko moom ñoom jëlaalaate nañ ko seen bopp kon yéen sénégalais bàyyi leen xel bu baax ci ñooñu nga xam ne ñooy les journalistes vagabondage maa leen ko wooyee waaw ginnaaw bi Macky Sall di di bëgg a wàcc beneen beneen tomb bi taxaw na di signé di recevoir ay musiciens di di nommer loolu yéen koy déglu mooy Macky Sall ku soxor la dafa soxor ndax bu mu ko moomee yeenu ko kenn mooy ba ma moomee doon président de la république décret valable moom muy signé leen falu leen defalu leen dara waaw na mu na mu defalu leen dara ne ba mu doon yëfi jàmbur mu koy sàcc di jox la comme ca jox lu mu la ci jox da koo sàcc mu cay sàcc di joxe mooy mooy sàcc euh, décret bu Bassirou Diomaye Faye di nomi di nomi ay léegi nag loolu la président de monsieur Bassirou Diomaye Faye lii rek la ci président Macky Sall jublu lan mooy yow après bi nga xool ay passeport diplomatique yu bari yu ñu sa jëlee ni gerte caaf du la arrangé parce que en tant que chef d'état bu bees ñi nga xam ne ñoo war a nekk adversaire suñu amee ay moyens ci moyens yoo xam ne sax mooy jaarul yoon nga taxaw te mën a da nga koy jël boo ko jëlee problème bi mu lay njëkk mooy la Macky Sall amoon 2012 mooy bi mu nangoo def sëriñ si motif la boo xam ne ñu bari ci ñu daan communiqué motif la bu ñu jëloon ba néewal ko ci doole ngir xam ne li mu la bëggal mooy wutal la ay noon te départ jox nit ñi lu ñu yor te du seen alal alal état nga taxaw te mu ci jël ko ñu ne kii daa foqale wala daa bëgg wala dafa ñaan wala lolé nak man bu nek ci problème ma méthode bi nga koy nangoo amna ma méthode la yo xamné yi yii mbooleem ci wara def def ko wala lu ci wara def nako def te bañ ko médiatiser bañ ci dugal ay nit ñu ci bokul bép avocat wala journaliste bu jog da ci jël am ci taxaway bu bokkut ak bi mu ci wara am yow bu ci am ben problème na rendre justice rek na rendre justice bu fekkee dafa yey état bu Sénégal ngeen wàcc dafay la leen ci wax ci la ñuy wax rek fekkee état bu Sénégal ngeen tek ko la ngeen santane bu leen do la kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mor Talla ngi lay siyaare bu baax di siyaare Mor Talla Sow di siyaare Massamba Signane siyaare